وسلما على محمد من شفى جسمي وأدناه وسل يا ربنا وسلما على محمد وقبلا مني تعياه وسل يا ربنا وسلما على محمد وحبيبي أمري براياه وسل يا ربنا وسلما على محمد الوسيع ثم مولاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه loolu gis ngeen mu ngi noonu waxi maam Baye la barxaama maadixahu barxaama xaadimahu dégg ngeen li mu wax léegi Muhammadul Mustafa awlaahu mawlaahu kulal ataaya wa adnaahu wa aalahu sérif dégg nga yaa ngi noonu yaa ngi tolloon ci euh, gaynde gi njol màkk daal dina ko dee mu daw dellu ca dëkkuwaayu xalimatu saadiya la mu ko dee nag mook giléem ga ñoo mook euh, gaynde ga ñoo ko xam mm-hmm. tey sa maam njool màkka la ñuy waxtaane yaay saydaa ngi ni toog ñee ngi ni toog tey daal bëgg noonu xam sang ba ca Medina sallallahu alayhi wa sallam nu sama mujj shérif sallallahu alayhi wa sallam Oustaz. Uh-huh. man ci waxtaan bi <laughs> yow laay wétali ci waxtaan <laughs> eh, sama benn waajur maa ngi déggante bu may ñëw mu ne ma yéen salaa salaam li ñuy wax ci moom du ñàkk sax bis bu nekk loolu la ñuy wax ci moom mm-hmm. waaye bis boo ko waxee rek wala saa soo ko waxee mais dafa gën a bees ci nopp yi parce que nopp yi ñu koy déggee du nopp yi mm-hmm. nopp mbëggee lañ koy déggee ñun mm-hmm. yàlla Moussa bi ñu ko laajee ndax gis nga yàlla dafa ne waaw mun ñu loo ko gisee mu ne sama lépp ma ko gis mais salaasalaam noonu la ci ñun ko tamit ci ñi ko nàmpal fii Sénégal léegi léegi rek yaa ngi dégg soxna yi ngi tàgg ay abiyaat ci yonent ci Lamine Mawlana Cheikh bi la mooy sama wasila mhm. sama jubluwaay man maay xaleem xool Cheikh Ibrahim ak nu mu ci àdduna bi man moom mooy ana man maay xale yonent bi wam nii samaahu sama doom yëpp moom laa ko tuddee alayhi salaatu salaam te doom yëpp nag mooy góor ak jigéen noonu Cheikh Ahmad Bamba def Xaadimu Rasuul mu ne sama doom yi ak sama alal bi ak sama yaram ak sama deret yëpp fi daahum mu ne man jox naa ko yéen salaa salaam fi daaw naa ko yéen salaa salaam bu yàggul ma ngi waxtaan sama benn xarit mu ne Cheikh Ahmad Bamba daf ma sa woo ñaari doomam sëñ Mouhamadou Moustapha Al Kabir ak Cheikh Mouhamadou Fadal mooy sëñ Fallou mhm. nii la ñu ko nettalee mhm. daf leen naa baalu àq ba leen baal leen ma ñu ne ko Mbàkke ci yar bi suñu sa ma dund Mouhamadou Safa ci taalibe ak murite mu ne ko ci naka Makka yar bi mu ne ko am na ak mu leen yore mooy ak mbëggeel ak toppatoo ak nit lu war diggante waajur ak doomam mm-hmm. waaye bëgguma leen mm-hmm. toppatoo ma leen mm-hmm. ndax dama amatul place mu bëggee keneen bëgg naa lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim wax radiallahu anhu ñu ngi nettali ci wayam boobu mu ngi am fa wallahi waatam boobu maa fi maa fi qalbi razun li gayrihi mu ne sama cër bi amul beneen cër fekkoon benn cër la yontu bi na ko fekkoon fukki cër la yontu bi jël na ko fekkoon téeméer cër la yontu bi ko mu ne wa wa Mustafa sax man xaw ma ko man laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah oo oh, yàlla waaw kay laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah bi rasulillahi ta'lu madinati على الملك والأمصار والخير يحدث لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله بحب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث إنني قبل البرايا هبه شغل جناني فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني صلى الله عليه وسلم وهو كنزي وأميني وأماني ورفيقي وطريقي وجوادي وسناني la ilaha illallah la ilaha illallah وقفت على باب الكريم محمد وقوف حزين القلب حيران مكمدي وقفت على باب الكريم محمد وقوف حزين القلب حيران مكمدي لا إله إلا الله laa ilaaha illallaah